asalaamaaleykum mbokk internautes yi maa ngi leen di di leen nuyu man Awa Laye naa leen di nuyoo fii tey jii ci émission bu mag bi nga xamante ni mi ngi tudd jigéen ak këram jigéen ak këram nag lépp la ëmb ñu ngi leen ko présenté fii nii ci émission bu mag bii ñu leen di defal tous les jeudis 10h ba midi ma bëgg sama mbokk jullit yëpp teewlu ko ñu waxtaane ko muy jigéen ak këram fii ci Média 7 TV fi lañ koy amee ñu war ci mën a jàkkaarloo nag sama naataango bii di Zahra ma war ci jàkkaarloog moom. Euh, ñu war a mën a waxtaanee lu bëri bari tey jii ci biir kër gi war ko mën a waxtaanee si biir kër yi muy jigéen ak këram. ma feggoog nag sama doomu ndey muy màgget ma invité ko ci biir émission bi ñu war a mën a toog toj wax li ci biir kër yi. asalaamaaleykum Zara. asalaamaaleykum euh, suñu mbokk askanu Sénégal. asalaamaaleykum euh, suñu mbokk internetu. Média 7 TV ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam maa ngi nuyu sama nattango bi soxna Awalaay di nuyu aussi suñu invité bu yàññi bi soxna Maguette Ndiaye. tout d'abord euh, ma ngi ñaan aussi si Covid 19 bi ñu nekk sunu borom jëlé lañu ko fi si jamm ak salam ba mu mañ di baña ñëwati fi di ñu lor. alaykum suñu mbokk wa internet media 7 ñu ngi leen di nuyu. di leen ziar di ñaan yalla suñu borom. di euh, fi nekk di mbass mi yàlla dimbaluñu ba mu teggeekuñ ci jamm ak salam yàlla yóbbu ko fu sori mu sori ñu ndax ku nekk mën a delluwaat sa activité waaw ginnaaw bu ñu jógee ci loolu nag ñu ngi euh, gërëm ñëpp daal di sant ñëpp hmm? di nuyu suñu fans yëpp macha allah euh, di julli ci yenent soxna Awa Laay maa ngi lay nuyu di la remercier ci invitation bi mhm. di ci kontaan loolu nag mhm. waaw ndax yow soo ma invité damay sawar a ñëw mhm. macha allah ndax boo ko yoppalaatoo lu may neex lay doon di nuyu tam soxna Zara ma chérie maa ngi lay nuyu. di la ziar. Hmm. ma ñëw tey eh, ci sa invitation. voilà soxna Maguette. Euh, kontaan naa fi nga duggee neex na ma lool. Euh, maa lay remercier bu baax a baax ci bi ma la invité nga nangu ñëw fii euh, mën a jàkkaarloo ñun fii ci plateau bi ñu mën a hmm. waxtaan ci lu bëri bëri. Hmm. kontaan naa lool ci sa teewaay waaye tey jii émission bi ci fiñ ko tënk ci ñetti ponk rek la mooy que ni jigéen ak këram lañ wax. biñ nee jigéen ak këram. dafa ëmb lu bëri jigéen bu baax nag la ñuy wax. dëgg léegi foofu nag laa la invité pour mën ci waxtaan ak yow feggu sama xarit doomu ndey bii di Zara. ñu war a mën a toog tey waxtaanee ko wax li ci biir kër yi nga mën ñu faram fàcceel xamal nu nan la jigéen war a comporté wooyu ci biir këram ak jigéen nan la war a mel. Hmm. jigéen bu baax nan la war a mën a gérer entourage am ci biir këram ñun jigéen ak këram. Hmm. jigéen ak këram nag lépp la ëmb. dëgg la foofu nag laa bëggoon ñu dugg ci tey. Mhm. ñu mën a waxtaan mbokk internautes yi mën a déglu ñu euh, mën a ci am njariñ am lu mu leen jariñ. parce que waxtaan bu yeetewul yeddewul amul sens. te yaakaar naa teg bi ma la teg fii xam naa ki ma fi teg kan la. dëgg la kon di ma war a mën a waxtaanal ci jigéen ak biir këram. Mhm. foofu laa bëggoon ñu ñëw ci lool waaw soxna awlaay Laye. oui Laye loolu soo ma ci laajee laaj nga ma lu ma neex. Mhm. macha allah laaj nga ma loo xam ne ci domaine boobu. ci laa yëngu daal macha allah tubaar fakal la ndax dañuy jeeg ni mhm. jigéen ni muy war a doxe ci biir këram mhm. dafa bëri ay pàcc ndax jigéen dafa am noo doxe nooy war a doxee mhm. ci sa biir kër am nooy war a doxee ci sa biir waañ am nooy war a doxee ci sa biir néeg am nooy war a jëfee ci sa biir lal tamit dëgg ci sa kaw lal tamit dëgg waaw dañu toll ci moom moment boo xam ne ci biir société bi dëgg la dafa manqué ci jigéen ñi manqué na manqué boo xamante ni dem na ba sëy yu bëri ñu ngi tas. dëgg la. te yaakaar naa ne manqué boobu moo ko waral mhm. ma bëggoon xam na nga ñëw ci sa mbokku jigéen yi muy mhm. sa rakk yi di lay di la bàyyi xel mhm. muy sa sœur yi ak ku mu mën a doon muy xale bi doog dugg ci biir néegu sëy bi muy jéeg bi ci yàgg dugg démb ak ki ci duggu tey lan nga koy conseillé boo ko doon jox xalaat tey waaw soxna awalaay Laay Laay Maxtaar li may conseillé sama mbokku jigéen ñi Euh, par exemple. bu dee ci soog a dugg xale tey. dëgg la yaa ma gën a xam. Mhm. ñoom dañuy bëgg bu ñu sëyee wut seen mhm. apartement bopp. Mhm. Euh, te gis nga sey boo gis. trois et mois. mon chien. ah waaw bu ngeen jotee moom ku leen di àtte. kenn xanaa xaj ba. xanaa chien ba. te defe naa di ngeen yéex a ko. dëgg la. Euh, bu dee ñi nga xam ni fa tubaab fi kàlla macha allah yàgg nañ ci. dëgg la am nañu nu ñu war a taxawe mm-hmm. ndax bu dee koo xam ne yàgg nga ci sëy war ngaa war a mën a boole say mbokk jëkkër. dëgg la say xaritu jëkkër. dëgg la même say xame jëkkër. Mm-hmm. nga def leen ni sa bopp. dëgg la ndax nag soxna Awalaay dafa am lu am. Mm-hmm. xam nga ñu bari dañu foog ni sëy man ak yow la man ak sama jëkkër. déedéet waaye nag gis nga boo bëggee dégg dëgg laay maxtaar. gis nga jigéen ji mus dëgg. Mhm. jigéen ji xam say dëgg. Mhm. mooy jigéen ñi nga xam ni jaar jël mbokku jëkkëram. dëgg la maanaam ay njëkkeem. Mhm. ay goroom. ay xaritu jëkkëram. gën leen bëgg ko jëkkëram ji muy sëyal. tamit dëgg ndax xam nga lan la. sëy dafa am tay am suba. te da ngay sóoraal ni suba boo jàppanteeg sa borom kër. waa laay maxtaar ñan ñoo lay àtte. waaw foofu nag loolu nag mooy wax ji. te loolu moo tas dëkk bi. ci biir loolu nag. laay jox kàddu bi sama doomu ndey Zara. lo wax ci li soxna Maguette wax lo ci xam que ni toi et moi bi tas sëy yi mi nga xam te ni mi ci biir dëkk bi lëmbe dëkk bi yow lo ci xam. soxna Awalaay euh, maa ngi contane loolu ci question bi parce que euh, soxna Maguette li mu wax c'est you toi et moi yi tas dëkk bi man je suis pas d'accord sur ça parce que tey jamono ji dafa toj. jamono ji doyna wax motax tay tax yi di def toi et moi ñom ak seeni soxna. parce que da ngay gis tey goro bu ñëw ci sa kër. Mhm. ki jox sa jabar wala ki jox sa kii. Mhm. sëy na sëyam ba pare. Mhm. ñëw yow bëgg a sëy sa sëy. noonu non parce que góor ñi tamit dañuy soxla stabilité. parce que sa borom kër mënul wàcc ba pare. tey war a nekk ci tranquillité déjà benn doom ci kër sax problème la. waxatuma ñaata doom. léegi bruit boobu yëpp nekk ci kër gi sa goro mayul jàmm sa jabar mayula jàmm bëgg na xam kii lu muy togg dépense bi ñaata yooyu c'est compliqué. donc lolo je suis d'accord avec le toi et moi bi ni di dougou, di plutôt parce que lolo peut-être moins andi stabilité ci biir Non gi. non ne sais na koy rafetlu ne man pas. Je ne toi et moi bi batay, le problème yu am. toi et moi bi uh-huh. ba batay le problème yu am. tax man ak sama jabar rek ci ne kenn nday ñëwul baay ñëwul tante ñëwul nijaay ñëwul xarit bi doon ñëw sax fexe nga tey jii ba écarté kook jëkk xaritam ba nga dugg see see see est-ce que loolu tamit rafetlu nañ ko wala ñun suñu société war na mën a doxee noonu parce que ñun di dëkku lislaam lañ nekk dëkku diine lañ nekk pour man sëy bu njëkk ba yaay la papa doom nijaay tante ba ka jógee kaw ga sax ñëw bu ñëwee ko dalal ci kër gi dina lekk dina naan waaye su fekkee dañ ne jigéen ak këram nga nekk ci sa biir kër pour yow jigéen ak këram yow kese la yow rek la war mooy sa jëkkër sa doom est-ce que loolu mun na nekk màgget. déedéet soxna <coughs> man li soxna saara wax uh-huh. duma ci ànd ci benn côté. Uh-huh. ndax nag gis nga boo nee sëy. Uh-huh. sëy école la. te boo commencé classe. dëgg la da ngay commencé ba jëm kaw. première ba première ba ca kaw waaw kay. mais doo ñëw rek ni damay dugg CM. déedéet déedéet. foog nga jaar ci ABC. D. kon loolu la di wax ne ku jàngul bëgg a tari du sotti. jërëjëf laay waxtaan. d'accord demal. Euh, li soxna Zara wax du ma ci ànd ak moom ndax gis nga sëy ca ngemb la euh, ngemb li mooy dangay ngay fekki goro bu góor fekki goro bu jigéen fekki magu jëkkër fekki rakku jëkkër waaw su ko defee lu metti nga muñ boole ñu la bëgg ak ña bañ yépp nga boole bëgg ñépp nag waaw mhm. takk sa ndigg mhm. toggu añ toggu reer yàkk mhm. boot wàcce fóotal goro euh, rootal goro paaseel goro su ko defé bo liggé bo amé sa tuwaay mois xamni li nak ya ko liggé deug la parce que parce que ñaq ñaq ñaqante nga ko ci biir kër ga jërëjëf njëkk ya góor ya ñepp na ci biir merci nga and ak ñom ci loolu jërëjëf muy neex ngay muñ waaw kay muy nakati ngay muñ ba bëss ñew ñu ne jàng nangul waaw ta su lay maktar euh bo togué ba sa borom kër di la wutal rakk boo nee maa fi ba dara dul dara ñu mën ko gëm ñu mën ko dëggal da melni nak zaram daa bëgg toi et moi ba mu ëpp daa mel ci xale toi et moi yi la ne bokk nag Sara mii moom faaw nga wax ak moom ndax toi et moi bëgg na ko trop waaw bëgg naa na nga wax ak moom ci loolu. non soxna Awa. Mhm. man bëgguma toi et moi. Mhm. mais dangeen war a xam ne jamono dafa changé. Mhm. yooyu temps maam la. adduna day dox. nouvelle technologie. yooyu dafa yàgg.

la góor am sañ-sañu yëkkati jabaram ba ca kaw dóor ci suuf ndax danaan maa moom doo nga fi nekk uh-huh. la góor am sañ-sañu yëkkati loxoom mbéj taal nga daanu ci suuf këlëb mën na fa tegg romb la fa uh-huh. dem laa ngi ji ko feneen bàyyi la fa uh-huh. booba bu sa yaay nekkee ci kër gi kan mooy sa yaay sa yaayu jëkkër mooy sa yaay dëgg la bu sa papa nekkee si kër gi kan mooy sa papa sa papa yi jëkkër mooy sa papa tey bu fa nekkee seen doom dina am lu mu leen ragale pour man dina am lu mu leen rusee bu bu la bëggee doo dina xalaat ne bu ma laalee kii kii sama yaay dina jóg waaye man dama gis ni depuis trois mois am ba léegi benn sëy neexatul benn sëy doxatul lépp a yëngu loolu nag laa bëgg eh, yéen ñi nga xamante ni da ngeen dund trois mois ngeen xalaataat ci bu baax a baax. dëgg la ngeen xool fi ngeen teg seen tànk. bu ñu nee tey jii démb a tax démb daa baax moo tax tey mën a ñëw. Mm-hmm. ba sunu maamu démb yi defarul woon ba mu baax lu mel ni maam Fawade Wele hmm? lu mel ni yaayu Seyna Issa mii ci jàmm fii. lu mel ni yaay Sénégal maam maam Kumba Ndooy dëgg la lu mel ni maam Jaara yaay borom Touba. Mhm. bu ñu defar woon ba mu baax ba jur ñu baax ñooñu ñooñu duñu mun fi nekk ba jur ñu jur suñuy maam ba ñun ñu mën fee nekk. déedéet te ñooñu nag boobu xam nga loolu sëyee mhm. kër gi na yaatu na xàll wi yaatu nday na ñëw bàyyi na ñëw na ñëw ku gàddu sax ëmb sax ñëw dugg si ci biir kër gi. dëgg la pour man loolu buñ ci buñ ci mënta dellu ndax jamono changé na kër yi mën nañ fee nekk ñëpp ne ci biir kër yi. Mhm. kër yi neex comme la seen alimaam waxoon na nan yaatal sàq wi ñëpp ñëw sàq wi yaatu na ñëpp ñëw mu ne ko ñëwul gëm si sax dinga ñëw rot si delluwaat. dëgg la kon ko ka yaatal na màgget foofa loo ci xam ci loolu. waaw ma taar fi nga daane la rek foofu laay yëkkatee. daf may neex. waaw ndax gis nga nee nañu sëy. Mhm. comme li nga ne ku jóge ca dëkk ba ñëw sax ci la bokk. Mhm. gis nga sëy taalibe bi romb ci mbedd mi sax. ma ca biir kër la bokk. Mhm. ndax defe naa taalibe tey bu ñëwee sa buntu kër nga sarax ko. dëgg la mu ñëwaat suba nga sarax ko. dëgg la non ginnaaw suba du la romb. déedéet day abonné sax. loolu yëpp ci yaatu la rek. Mhm. loolu yëpp ci xol bu ubbeeku la rek. loolu yëpp lu ko waral. Mhm. dëkk fu yaatu. dëkk fu njaboote. njaboote ñëpp uuf ñëpp boot ñëpp. mooy waral sa xol di ubbeeku ba ku ñëw nga dugal ko ci biir. waaw kon nag daal lay maxtaar. man daal saytuwaay moi daal ànduma ci daal man daal bëgg naa sooy commencé daal commencé ca bii kër ga commencé mhm. fa famille ba ne mhm. comme li nga wax sànq euh, mhm. gis nga góor day am lu muy ragale tuuti ki muy sëyal bu fekkee leer na ni moom mi ngeeg waajuram mi ngeeg yaayam ah, xalaat ni bu la defee nii yaayam dina wax wala bu waxee lii yaayam dana wax ah fa tubaar fakal la macha allah day metti lu bari nag day sóoraale di am kersa gu tuuti goo xam ni dala koy réserver même bu dul entre yow ak moom day xool ndax mi ngi kilifaam tamit dëgg te du bëgg kilifaam ni ñu ni tey doomu diwkat day mm-hmm. toroxal soxnaam. tamit dëgg waaw. tamit waaw moo tax daal soxna Awa daal kër gu mag mm-hmm. daal. Mm-hmm. ku fa jaaru daal. doo dara jaaroo dara sëyoo wallaahi kon ñu jug rek dem 3 mois sëyoo voilà kon mbokk internet yi ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax xam naa ne yéen ñu ngi teewlu ñu ngi fii ci jigéen ak këram euh, di leen ko présenté ma ànd ceeg samay naataangoo muy Zara ak soxna Maguette mi ñaawal mi moom tamit ma leen di kontaane bu baax a baax fii ci Média 7 TV soxna Zara. Euh, li soxna Maguette wax ci ci ci jigéen ak kërëm que ni moom 3 et mois bi ngeen di dund bu don sagom ngeen xolaat bu baax ngeen koy doxale ndax li am lu bëri et mois bi moko indi te mom bu doon sagoom ngeen di ci kër ya di commencé ca date la nga xamante ne dinañ la ruse sen yaay ruse len sen papa yow lo xam ci loolu. wa comme ni ko soxna Maguette waxee la maison familiale. Mhm. ku fa jaarul. Mhm. kon gëmul ne sey nga. Mhm. je ne suis pas d'accord nous sommes ici, nous une maison familiale, nous avons bataille. Nous avons 30 ans de mariage, 50 ans de mariage. Mon mhm. exemple, si vous avez vu, c'est ce que l'air là. Donc, ça ne veut pas dire ça. Mhm. Parce que nous avons dit maintenant, il faut un vous ayez dans la maison pour faire. vous l'adorez. Mais les gens qui l'adorent, c'est l'habitude. C'est l'habitude. C'est l'habitude. C'est l'habitude. loolu kenn mun ci dara. loolu si jikko la. parce que yow jigéen moo la jur. am nga ay sœur. kon je me dis tey boo jëlee doomu jàmbur. andi ko ci biir kër gi mu sëyal la te yàlla rek tax. mu jural la sa njaboot. ki tax doom njëkk la ne pàppa kon kooku waroo gis dara ci moom wara waroo namm dara ci moom lu dul ay dóor. yaram bu nooy te liis war nga ci namm leneen lu dul ay dóor. loolu laa am pour wax. Zahra sa wax rafet na. que ne loo gis rek ci jikko la kon daal. kon góor bi dóore jikkoom la. jikkoom la. kon kenn mënu ko ci dindi daal kenn mënu ko ci dindi. lu jigéen di rafet rafet lu mu baax baax baax mënu ko dindi ci dóore bi. mënu ko ci dindi mënu dindi jikkoom. jikko la jikkoog borom pax. te yaakaaroo tamit ne oustaz bu waxtaanee euh, ñoom ñooñu góor yooyu tamit du mën a changé. ñooñu kenn mënu leen soppi. defee nga ko. ñooñu kenn mënu leen soppi awa. léegi Maguette loolu xam. góor boo xam ne kenn mënu ko soppi. bi soxna Zahra wax. tontu ci lu ma neex lay doon. ndax gis nga soxna Zara dafa ni. yaram bu liis. yaram bu nooy. góor waru cee xalaat lenn lu dul raay waaye du ay dóore. dëgg loolu leer na nañ. waaye nag gis nga soxna Zara dafa mel ni moom dafa posé question ba pare répondre boppam. ndax dafa ni. góor buy dóoree jikko la kenn mënu ko soppi. waaw boo ca tombee góor guy dóoree nag. ba muy jikkoom sax ci deretam law ci moom mu ciy yi mu ne ci xolam ak ci xalaatam mu koy dikkal. waa loolu bu fekkee yow jaar nga ci école bu mag ba muy kër yaay ak baay. ndey ji bu ko dindiwul dana wàññeeku. ba ëllëg soo leen wéetee. bu xàccee nar a dóor. bu xalaatee kàddu gu ko yaam waxoon. ah defe naa bu la doon mbéj. wala muy xët dana ko xaw a liisal tuuti. dina ci am lu mu ci seet. dina ci am lu ci seet. moo tax daal euh, man daal soxna awalaay daal man daal foog naa ne soxna Zara mi mhm. balaa ñu mën a juboo ci kàddu mhm. xam naa feew émission bi lay doon gis naa ne yow mayoo ko dara nag déedéet gis naa moom lu ma dama koy mayoo ko ci dara nag laay laa gis naa lépp siif nga ko yéeyee waaye nag jëlal ba tey rek ñu dellu siwaat ci ci ci jigéen ak këram waaw soxna awa oui ginnaaw ci loolu ba léegi mhm. ginnaaw dafa am góor ñoo xam ne comme ni ma ko waxee sànq rek. ñoom dóoree. Mhm. mbéjee ko tële. Mhm. ci seen deret la ne. Mhm. duñ la raay duñ la fóon duñ la caressé. def li war ci jigéen. dëgg la waaye tamit nag euh, fa tubaar fakkaar la yàlla dafa bind te yamalewul. te yàlla toujours boo xoolee ci ay couple. du boole góor a jigéen ñu yam jikko. déedéet day def jëkkër am. jikko ju baax. ku jigéen ka mel na neen mhm. wala parfois mu am ko jigéen mu def ko jigéen ki am jiko ju baax mhm. ku góor ko mel na neen mhm. waaye bu mu ci doon rek ku ne mën ngaa soppi sa morom ci kàttanu yàlla dëgg la dëgg la ndax tey di nga gis góor goo xam ne da yor benn jiko bi comme ni nga ko waxee di dóore di màtte di gajje di defee lépp nga am soxna soo xam ne fa tubaar fakal la yàlla may na ko teey may ko dal may ko benn euh, éducation de base boo xam ni ah yàlla boole leen waaye donte ni roowu leen jikko kooku yàlla mën na def su jëla jàppalee tuuti rek ah, yow ko góor ki dinga baax. kon mooy li ma wax ne jigéen ak këram. Uh-huh. jigéen ji ci biir këram. waaw te am jukko ju baax. Uh-huh. am jukkoy taalibe. Uh-huh. am éducation de base comme ni nga ko waxee. kon war na mën a soppi góor. leer na soxna la awalaay ndax boo gisee suñu njëlbeenu émission. jigéen ju baax. jigéen ci këram. jigéen ci néegam jigéen ci kaw yow nag question bi ma posé nii. ci maanaam jigéen joo xam ne mën a defar boroom këram. Euh, ba mu mel na ko neex. mooy jigéen ci biir néegam. ndax xam nga tey jii booy wëlbati sa borom kër. Mhm. doo ko wëlbatee ci ëtt bi. déedéet doo ko wëlbatee ci mbedd mi. déedéet yaag moom ak seen néeg. Mhm. yàlla dafa def euh, néeg muy sutura. Mhm. waaw góor ak nu mu mën a mel mën nga waxtaan ak moom. delloosi ko. ko yedd ko. dalal ko. ndax góor lu mu bon bon bon nag bëgg na yaay ma ah. waaw. tey jii bu xàccee nar a dóor. wala mu dagg war a saaga. man comme bu dee sama bi ma yor njaay Samba. Mhm. dama ko naan njaay Samba Ndiaye. wallaay xoole ma sa bëtu yaay. wallaay ndeysaan. wàcce loxo bi nag yàlla bokk ci boole ni ko gaynde Ndiaye Sénégal Ndiaye. dégg loolu ni ko Ndiaye wàcce loxo bi. xaalis sax Ndiaye. waaw kay. Mhm. ni ko sama lex bi gisoo nu mu lisee dootu ni ma ko leerale ba mu leer. ni dafa waaw mhm. góor daa foo koy jaar. waaw kay bàyyi Zara dégg nga li soxna màgget wax. waa léegi yow loo xam ci loolu yow mi biy dund toi et loolu laa bëgg a xam waaw soxna euh, Maguette soxna Awa. Mhm. Euh, soxna Maguette li mu wax dëgg la. Mhm. mais tamit euh, man waxeewuma ko ci sens boobu. dëgg la seulement que dafa am jigéen ñoo xam ne tey. Mhm. dañ leen takkee bitim réew. dëgg la Europe. Mhm. ñoom loolu la ñu tàmm dund. dëgg la comprendre nga. Mhm. comme fii ñun suñu culture. man mhm. waxewuma ko ci toi mois moi kese. parce que man mii dund ma loolu. je vis pas ça dund ma loolu. mais am na ñoo xam ne dañ leen di takk ñu sëy ci kër gu mag. dëgg la donc boo seyee ci kër gu mag. bu la neexee après mun nga beru. mais tamit damay wax dama généraliser. parce que am na ñoo xam ne fee lañ leen takkee ñu ñëw sey si. comme dëgg. tu comprends. foofu laay waxee. léegi nag euh, comme ni ko soxna Maguette waxee. Mhm. jigéen day soppi góor gu bon mhm. comme góor gu baax day soppi jigéen ci bon parce que fii dangay ngay gis jigéen ñoo xam ne tey dañuy nekk si nekk si lu leen neex mhm. di def lu leen neex mhm. comprendre nga tey góor gu baax ñëw takk leen dugal leen ci kër ñu sëyal leen te yàlla rek tax te man dama daan dégg sama maam naan sëy neexul mais sëyaat a neex te jéeg bu sëy batas kooku day sawar ci sëyaat kooku góor gu ko takk da ngay am soxna kon dama wax rek pour généraliser pour ñëpp comprendre ne waxewu ma ci toi et moi ndax man nii je vis pas ça. d'accord comprendre nga. ndax jigéen. Mhm. moom la yàlla dooleel. Mhm. ñun jigéen yàlla daf ñu may. Mhm. daf ñu may loo xam ne ñun xamuñu ko ñun yàlla dafa def si ñun doole gu rëy. ndax ñun la góor di gis. tàggali ko sagoom. ñun la góor di gis. jox ñu lu ne ci àddina kon ñun jigéen ñi mm-hmm. nañu gën a xoolaat toogaan toogaayin bi toogin bi gën a xoolaat euh, njaboot gi gën a xoolaat euh, nu ñu mën a gën suñu boroom kër ba nga xam ne mm-hmm. ñu dem xool ci classe ku bi ñuy wax euh, classe xale yi ceeb bu sew bi mm-hmm. soxna Zara waxtaan bi am na solo fi nga fi fi nga dugg see neex na ma parce que buñ nee toi et ku nekk mën nga ci gis sa bopp kenn ni soxna Zara dafa ni ñoom dañuy dund toi et soxna Maguette ni nañ dellu ci ëttu cosaan ba mooy sëy ci ndàtt la mhm. ñu ne sëy ca ngemb la xam nga yooyu yëpp yu am solo la waaye man li may fàttali fii ci jigéen ak këram que ni sunu mbokk internet yi que nii ñu ngi fii ci jigéen ak këram ci seen média 7 TV pour mën a waxtaan ak sunu mbokku jigéen yi. soxna Maguette. waaw kon euh, li Zara wax. Mhm. yow loo si xam. waaw soxna Awa. Mhm. li soxna Zara wax li ma ciy dolli rek mooy. wax na dëgg. xam nga dafa ci am ñoo xam ni. Mhm. soxna yoo xam ni. Mhm. dañuy jóge Europe. dëgg la ñëw fii fekk ñu fi. Mhm. maanaam daal euh, di ñu jéem a di jéem a génne ñun foo xam ni. amaana sax ñun ñi ngi fii. ëppale leen ko nag. dëgg la gën leen koo jonge nag. ndax ku ne xam na ni femme bi nekk fii Sénégal. nekk fii. Ah, du bokk ak vive. ki nga xam ne jóge na fii même bu dee fii la yoroo màggee fi dem fële ñëwaat. bu ngeen langee ba toog rek dañuy xam ne Fatou Ba Fakal la kii fay la jóge ñëw. kii fii la nekk. tamit dëgg waaw. doo leen bokk sax. waaw du ñu bokk. du ñu bokk guy du bokk. waaw jonge du bokk. déedéet. langage du bokk. déedéet te feem du du bokk. voilà foofu nag laay ñëwaat ak yow ni la looy digal sa rakk yi. Mm-hmm. ci côté ku ci ne ci sa biir kër. Mm-hmm. jigéen ci biir këram na mu fay mm-hmm. dundee. ci uh-huh. wàllu cuuraay ji. wàllu def xeet xeeti baax baax yooyu. ak euh, nooy gérer sa jëkkër bu xëyee. Mhm. ba wàcc. Mhm. bu ñëwee nan nga ko war a teeroo foofu noonu nga may si xale yi tuuti rek balaa ñoo jeexal. Euh, laay Marta dugg nga foo ma gën a neexati nag. Mhm. ndax gis nga nee nañu. woo naar ci buuxante. Euh, soow soow. laay Marta man ci loolu laay yëngu. ci xeetu baax baax yooyu. daf may neex daf may neex ndax ci laay yëngu. moo tax ma woo ci macha gis nga góor dañ koy téye. du question damay wax. du question ni ngay téye góor. Mhm. Euh, euh, ay wax la. Mhm. wala ay jëf la. wala dem ci sëriñ si. déedéet ah donte nag dem di ñaanlu. Mhm. baax na lool. am na solo. ci foofu it bu def kenn lu bon waaye aara sa bopp aar sa njaboot fa tubaab fakkaal macha allah. lislaam bañu sax nga def lu neex sa diggante ak sa jëkkër. ba téye ko ba mu dëgër këcc. dëgg la waaye lay maxtaar. góor dafa am noo koy du mën a téye sax dafa am noo koy poñee. ratt nga koy def. jërëjëf. tey bi mooy góor su wàccee laay maxtaar mhm. xamoo lu mu yendoo ca bërëb ba muy liggéeyee mhm. moom dañ ko yendoo conditionné ba ngoon jot waa nga la su wàccee yow na la conditionné mhm. la la neex ak la la naqar yëpp booleel muñ ndax nag fa tubaar fakaal la góor la dëgg la nee nañ góor moo xale yam soo ko naxee rek yaa ko moom dami dëgg laay maxtaar sa alaaji bu wàccee joxal ndox mu naan ne rupp sukkal ba ca suuf tant que parewul bu jukk dëgg la wan ko ni yaay sama kilifa. est-ce que xale yi léegi nangatu ñoo sukk maye ndax toog xaar ba mu naan ba pare. waaw laay maxtaan ndax ko def. goo ma xale yi léegi dinañ ko defati de. ndax nag euh, bu fekkee sa borom kër wàcc na. Mhm. yaa nga ca whatsapp ba. Mhm. yaa nga ca facebook ba. waaw yaa nga ca google ba. Mhm. bu wàccee allo chérie ça va nga ne ko ça va mu a amul. doo ko sax tala tontu. doo sigg sax xool kanamam. nan léegi sax sa jëkkër day ñëw ba dugg ci biir kër gi nga sëgg sa jëkkër bu génnee di raasaatu. ni béy bu gisul yaayam. jërëjëf. ku mu romb rek fël. te foofu dama ci samp sama baaraam. waaw indi li soxna Zara wax sànq. Uh-huh. ndax sànq ci biir waxam dafa ne. Uh-huh. jéeg bu sëy ba sëyaat. kooku day sëy dëgg. mu ni jéeg ñi jigéen ñi sëy ba tas. jigéen waaw. mënul sëy. waaw sëyaat la man jërëjëf laay ma tamit baat bu dëggu nag. leer na. ndax foofu li tax ma fi ñëw mooy. Uh-huh. waxam jooju dama ko utiliser ci sama question bi nga ma posé. dëgg la loolu laa su fekkee góor. Mhm. yow mi xale bu ndaw. Mhm. indi na la teg la ci biir këram. Mhm. def la war ca yow. waaw fotubaar fakal la. maroo xiifoo loo joxoñ mu dagg. waaw su wàccee nag mënoo koo xool jël sa téléphone boobu fay ko. toppatoo ko may ko ndox mu naan lu njëkk. ah chéri noo yendoo tey. naka journée bi. nangam nangam. waaw kooku bu génnee ci mbedd gis jongooma ju sëyoon. ba pare daj lu metti nag. dund lu lu naqari. waaw lu saf sàpp. jërëjëf mel na mu war a mel. waaw gis sa góor na di góor a yéwee bu baax. mel na mu war a mel moom mu xam ne kii bu ko këfee say loxo toppatoo ko yow di ko ñàkk. da koy jë. jëf laay moo tax na xale yu ndaw yi. Mhm. toppatoo leen seen borom kër yi. loolu nag laa bëgg nga wax leen ko ba ñu ko bu baax a baax. waaw. Mhm. ma chérie sama chérie yu ndaw yi. Mhm. fii ci jigéen ak këram. waaw ci may wax ak yéen soxna Maguette docteur Dieng Euh, damaa bëgg ngeen toppatoo seen boroom kër yi donte nee ngeen yéen du ngeen dem kër famille. Mhm. ñu wutal leen tuwaaye maman. Mhm. waaw kooku xanaa wàccoo na ak yéen. wàccoo na ak ñoom moom. yéen a ko deseel. dëgg la toppatoo seen boroom kër yi. Mhm. bu ñu wàccee ngeen may leen ndox ñu naan. xool seen kanam yi ndax sonn nañ. ndax yéenoowuñu coono. ndax yennoo nañu bànneex. Mhm. may leen ndox ñu naan. Mhm. ñu buñ ñëwee fekk nga sañse ba baax. xeeñ lu neex. Mhm. la dara bu set. defar ba mu neex. set ci sa bopp yow waaw. set ci sa bopp pire. fa la xeeñ lu neex commencé defar jërëjëf laay ba bu ñëwee fépp di gilli neex. jërëjëf laay ma jox waxanteeg Zara moom lu mu xam ci loolu. waaw d'accord naa ci euh, soxna Maguette nee na moom mooy docteuru jéeg yi. li mu wax dëgg la. xale yi jigéen yi dund toi et moi. Mhm. kon ñooñu ngalawaay seen jëkkër de seylatu leen dara. dëgg say leen yàlla rek tax. Mhm. comme nu mu ko waxee. Mhm. di taal cuuraay yi gongo yi. di raxas bokkotaan yi ruq yeeg ruqaat yeeg su yi surtout souterrain yi. souterrain yi waaw souterrain yi nag laay wax xale yi jigéen souterrain yi fonk leen ko nag yéen laay waxal souterrain yi fonk leen ko. waaw te foofay xorom si waaw. foofu nak moy xorom si lol mom dal la am pour wax dal kon way sey len ta yalla rek tax ngeen xamne sen way waay ku ko romb du ko diri ni darmandra kon Zara ma bàyyi la nga tàggatoo comme émission bi jeexna waxtan bi amna solo contane nañ. ma ngi tagu suñu mbokk askanu Senegal, ak suñu mbokk internetu media set TV. Mhm. ñu ngi leen di di leen sante di leen jox dig daje ba beneen jeudi incha allah. merci beaucoup Zara kontaan naa Maguette yow lay tàggatoo. waa soxna Awa Laay euh, mhm. li may tàggatoo mooy di kontaan rek si invitation bi nga ma invité. Mhm. Euh, euh, di ñaan yàlla suñu borom émission bi jëm sa kanam. Mhm. fa tabaaraka la macha allah. di ñaan yàlla suñu bo suñu borom média set. nit ñi di ko seetaan. bëgg ko ñu ngi koy seetaan sax d'ailleurs. waaw di kontaan daal di kontaan. ginnaaw loolu nag maa ngi gërëm yàlla suñu borom. julli ci yenent bi di gërëm tam sama borom kër. moom mi nga xam ne moom moo mën a bàyyi. ma ñëw tey ci sa invitation bi. waa kon suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di gërëm fii ci Média 7 TV di kontaan ci yéen yéen ñu doon seetaan émission bi xam naa ne dañuy tàggatoo rek tàggatoo bu dul jeex di ñaan yàlla tasewaat fii ci yeneen i émission ci kàttanu yàlla di gërëm nag Babacar mi nga xamante ni nag moo jàpp ci liggéey bi ba macha allah lépp mën a jàppandi gërëm sama maquilleuse yu ñaawul yi nga xam ne macha allah maman ak euh, Adja maa ngi leen di remercier bu baax a baax di santit di gërëm moo di Eh, di ko gërëm ci jàppandal bi ak ni mu ni mu ni mu sawaree ci affaire yi ak do liggéey bi daal macha allah ñi ci jàpp ñëpp daal maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm ñëpp daal di kontaan di tàggoog yéen nag tàggoo bu dul jeex fii ci média set TV ci kàttanu yàlla ñaan yàlla yeneen i jeudi ñu tasewaat fi 10 heures ba midi ci kàttanu yàlla